jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy bàkkaar law na doom ji gëm ji nettali bi mu ngi cosaanoo ci tawret bi njalben ga saar ba saar juróom aaya juróom gannaaw añaanu kayin ci abel ba mu rey ko kayin daw na sore yàlla ak ay waajuram daldi dëkk moom rekk ay jamono jàll kayin am jabar jabar ji am doom ju tudd enok fekk na kayin mu ngi doon sanc ab dëkk bu mu tudde woon doomam enok ay at jàll kayin am sët bu tudd lemek lemek jël ñaari jabar ñu tudd aada ak silla aada jur yabal mu jur ñépp ñi dëkk ci ay xayma te yar ay jur rakkam mu ngi tuddoon yubal moo jóor ñépp ñiy xalam ak ñi liit silla am doom ju góor tubal kayin mi doon tëgg jumtukaayu weñ yi rakkam bu jigéen mi ngi tuddoon naama benn bés lemek ne ñaari jabaram ya aada ak sila déglu leen ma yéen jabari lemek déglu li may wax rey naa ab waxambaane ndaxte daf ma gaañoon def naa loolu ngir fay fukki yoon ak juróom te noonu la lemek defoon ak ko gaañoon te damoon na ko ci kanamu ay jabaram surtout aadama ak awa boobu moom it doonoon na ab reykatu nit bàkkaar wéy di dëkk ci seeni doom fàttaliku leen ne yàlla barkeloon na aadama ak awa te ne leen ñu am askan wu yaa noonu yàlla baaxoon na ci aadama ak awa bi aadama sëyaate ak jabaram jabar ji am na jeneen doom ju góor jabar ji tudde ko set ba noppi ne yàlla may na ma weneen askan bu wuutu abel mikayin rey set doom ji nuroowoon woon la ak baayam aadama bi set moom it màggee am na doom ju góor mu tudde ko enos li tekki tudd ci dund set ak enos nit ñi tàmbali nañu di tudd turu yàlla ngir jaamu ko noonu yàlla joxe na jeneen doom ju dul woon reykati nit ngir mi wuutu doom ju baax ja abel gannaaw judub set aadama ak awa amoon nañu yeneeni doom yu góor ak yu jigéen kenn ci ay doomi set toppoon na yàlla li tekki ne dundam neexoon na yàlla lool keneen ci ay sëtam dund na lu yàgg mu ëpp lu mu dund ci kaw suuf teewul bàkkaar wéy di law ci biir askanu aadama ak awa ñu tàmbali def ay jëf yu bon te yàlla bégul woon ci seeni dundin bés àtte bi dina ñëw ci lu wóor fii la nettali bi yem nanu jàng aaye bii ndax aji sax ji xam na yoonu ñi jub waaye yoonu ñi bon jëm sànku saboor saar benn aaya juróom benn